dem beeg dikk bi def pour euh, ànd ci ay leeral vol yi neuf yi dem na ñaari ñoo des pourquoi également euh, retard boobu par rapport ak benn vol aéronef boo xam dañu ko woon moom moo euh, tardé ak si fii ci diwaanu Ndakaaru déjà il la annoncé également des mesures par rapport ak waaw li ñu war a wax mooy su doon comme il faut sauver le soldat Ryan il faut sauver Air Sénégal euh, man mooy sauver cette compagnie pour en faire ko wóolooti wax ci pèlerinage seeni problème jiitu na pèlerinage retard de vol euh, absence de truc yenn saay lan dégg ñu ne dañuy loué fi ñu toll nii waxul na avion yu jóge Arabie Saoudite la ñuy wax ak yeneen ak yeneen. lu tax tey fleuron bu mel ni Air Sénégal ñu war ko sobe wara seet nuñ koy sauver très rapidement et ça c'est à l'état centrale de le faire le ministre El Malick Ndiaye expliqué na les raisons de de couac et de retard mais dafa am yenn bu diis wax naa ko ci. bañ koy doog a fal ba mu demee ci bi euh, accident ba amoon également ci euh, benn avion boo xam ne Air Sénégal la ko loué tey si on fait une comparaison Air Sénégal mënul diirante mag ak Ethiopian Airlines la flotte de Ethiopian Airlines avion yi Ethiopian Airlines am na ci cent cinq en deux mille vingt cinq maanaam dans un an seen objectif avoir au moins deux cent vingt cinq avions Ethiopian Airlines ku am cent cinquante avions nii nii nii def benn commande quarante ci diir bu gàtt plusieurs milliards de france CFA wala jël bu ne gàññ dugal ko ci xam nga pour lan parce que dafa am benn benn objectif boo xam ne compagnie aérienne yépp ci adduna koy am mooy fexe ba gën a am clientèle gën a desservir ci yenn ci ay zone Air Sénégal def nañu benn effort récemment di desservir yenn zone yoo xamee ni dem il fale nga jël yeneen i avion compagnie nga dem États-Unis dem Arabie Saoudite am na benn vol inaugural boo xam ne defoon nañ ko vers l'Arabie Saoudite dem ci déjà dans la sous-région Sénégal rek mu am ay avion dañuy desservir suñu yenn ci ay euh, Euh, mais il encore énormément d'efforts à faire par rapport ak këru liggéeyukaay boobu par rapport ak compagnie boobu yow diggante ak bi mu juddoo yàgg na yàgg euh, façon avion bu nekk indi nañ ko la ngay dégg chaque fois mooy retard euh, mu avion yenn amul sénégalais bu voyagé Sénégal benn jot nga ko te ñaxtu woo ko amul ci Air Sénégal noonu la valable ci lépp luy société wala euh, fleuron mhm. économie bu Sénégal aviateurs yi li euh, euh, compagnie dëkk yi di diirante mbagg fi mooy fexe sur du tourisme tey Air Sénégal am na bu rëy boo xamee ne war na ko def ci mbirum tourisme ba nit ñi di am confiance di ñëw ci euh, euh, Sénégal di ko jaaree par Air Sénégal dem ci yeneen réew il faut sauver cette entreprise là fi ñu toll nag comme ñu le ministre a sur une on onze euh, yu war a am neuf yi nañu dem mais avec des mmh. am ñoo xamee ba pare communication mmh. parce que ñu ñëw ñu ujaay toog xaar xam ñu ku ñu dégguñu ministre dégguñu premier ministre euh, compagnie gisuñu dara ñu jël leen euh, yóbbu leen ay euh, King Fahd Palace ak yenn hôtel pour ñu mën fa toog mais sans pour autant ñu am ay j'ai vu les sorties de Mbaye ak les compagnie les agistes yooyu lay ñaxtu war chaque fois di dellu ci benn pose problème mhm. et euh, c'est à l'État de prendre ses responsabilités le ministre l'a annoncé mhm. mais ci gaaw rapidement si on veut ce fleuron là au-delà de mesures le ministre a reprise vol yi